site d'information sin TV qu'un fichier ci diwanu Fatick andi leen lu bees tàkk plus lu jëm ci sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene le top top lepp lu jëm ci walu actualité sin TV nek fi ci diwanu Fatick togal fi région bu ak Sénégal TV joko dëkk bii di Yarguy nekk ci département bu Gossas askan bi fee yeewoo naqar ak tiis lañu am ci tuumaal gi ñu tuumaal seen sëriñ bii di Abdou Lahad Mbacké nekk nitu diine def lu nekk ci dëkk boobu di Yarguy buñ sukkandikoo ci kàddu Fodé Ngom di chef de village bu yi ak ñenn ci waa dëkk ba. ñu dajale mbooloo mi du dara dajale ko pour xuloo dajale wuñ ko pour xeex dajale ko dajale ko pour wax lu ñaaw. dañ koo dajale ngir teggi tuuma yoo xam ne dañ koo teg ci ku baax teg ko ci man ñu di ko teggi nag dajale mbooloo moo xam ne dañoo ñëw seere ko muy tund yi ñëpp ñëw nañ sëriñ bi de lañ ko waxal xamuñ ko ci moom lañ xam ci sëñ bi mooy jaamu yàlla ak liggéey jàngale ak yar waaw ndax sëriñ sëriñ bi de euh, dëkk bi li mu fi soppi bëri na lool xale yi képp koo xam ne jàng nga école sa xel neexut yaa ngi ca daaraam ja te soo ñibbee boo wàccee ñibbi seen kër sa waajur du joxe dara ba fi mu ne xale yu jigéen yeeg ñu góor ñu bari xa a ak seen dënd kon sëriñ bi li muy def ci dëkk bi ak tund wi euh, góor naa mënu koo xam ndax moom ay mbiram da cee dugalut benn góor naa dugalut ay politique dugalut dara sëriñ bi. day seet ci dëkk bi ko ñi muy ñi nga xam ne gën a dañoo néew doole dangay gis koo xam ne day yëkkati bëriwu kemb jox la nga béy bi nawet wàcc mu ne la boole la sa gerte ak sa ngooñ yëpp tàmbalee ko ndax nga jóg ci néew doole kon kon sëriñ kon sëriñ bi sëriñ bi liñ ko waxal a ah, boole boole ma ci man mi tuuma day tuuma de dañ koy tege waaye tuuma kuñ ko teg te ki la ko teg gëmu ko yow waroo ko waroo ko naqarlu nañ bàyyi ñëpp lépp ak yàlla. maamam faj waaw ndax moom day li ñu seere ci moom lu rafet lu jub lu baax ak ndimbale ak yare. mu moo Moodu mu sëñ Abdou Khader njëriñam ci tund wi fii ku koy sikki saka dañ ko dañ koo jegewut rek li ma li ma ciy wax lu mu néew néew moo di 2003 bi mu fi ñëwee ak léegi euh, kaamilu alxuraan bi muy jàng fii di ko jànglu fii. Eh, eh, du nord du nawet eh, bes bu yalla sak dina jàng lu ñaari kamil alxuraan ci dara ji 2003 2003 ak léegi ñoo ci 2024 lolu ñaat at la at yu bari la waaw léegi biñ biñ ko laaje lu mu jublu ci ci kamil yoyu dafa ne li mu ci ñaanal bepp julit bo xamanteni joge na fi julit eh, la wax de eh, depp julit bu fi joge suñu mm, eh, borom boole ko ci yool kamil yi depp julit bo xamantene depp julit bo xamantene mi ngi ci kaw suuf suñu borom boole ko ci yoolu alcorane bi mu jàngale muy jang bes bu jot bes bu yalla sak du nor nak du nawet ye ak nawet yep la yemalé wutut mu mu taw wutut lenen nor ak nawet ñaari ñaari kamil yi mom bes bu yalla sak du tarde tardé mukk léegi nag euh, euh, di di di ñaanal ñoo xamante ne xamu leen ñu ñu jóge fi di leen yéene ci ci yool boobu di ñaanal ñoo xam ne ñoo ngi ci tund ci ci ci ci ku wax ashadu ci ci bi di la yéene ci ci yool boobu ak ak ñi nga xam ne ñoo dëkk ci ci ci tund bi fii di leen di leen ñaanal euh, jam ak xéewal ci ci ci ci ci kaamil yooyu loolu ku ku ko xamut da nga koo jegewut rek waaye ñoo ngi ñaan suñu borom guddal fanam lool wéral ci ram ndax njëriñ bu mag la ci ñun ñi nga xam ne xaw nañ koo xaw nañ koo xaw nañ koo xam ñi ko xamul nag c'est c'est la ci ñoom waaye xamaguñ ko waaye résultat yi kaamil yooyu résultat yi incha allahu rabbi ñoom ñi ko xamagut dinañ ko xam ci kanam yàlla na yegg suñu kanam lool barki Serigne Touba ñi képp koo xam ne yaa ngi koy tuumaal nag képp ku koy tuumaal ñoo ngi ñaan ci barki Serigne Touba yal na nga gindeeku ba xam ko boo xam ne kii moom borom njëriñ la bu amutut lor. Euh, c'est parce qu'il y a des accusations fallacieuses qui ont été euh, tenues à l'endroit de notre vaillant marabout, le nommé Serigne Abdullah Mbake. Je pense que de tels propos ne méritent pas d'être tenus sur notre euh, fameux guide religieux. Donc si parler de Serigne Abdullah Hanbake euh, devient un sujet très très dur, parce que l'œuvre de Serigne Abdullah Hanbake se résume en trois verbes. Premièrement, c'est apprendre. Il apprend et fait apprendre le Coran ainsi que les racines de Chien Ahmadou Bamba. Le deuxième verbe, c'est le verbe travailler. Le marabout ne cesse de travailler, euh, tant pour la saison des pluies que pour la saison, des, euh, que pour la saison sèche. C'est grâce au marabout Serigne Abdullah Hanbake qu'on a pratiqué euh, ce qu'on appelle le maraîchage. Comme on, vous l'a montré tout à l'heure avec euh, notre puits, c'est lui qui a acheté euh, la pompe pour permettre à nos vaillantes femmes de pratiquer ce qu'on appelle le maraîchage. Très bien. L'autre verbe, c'est le verbe aider. Le verbe aider. Donc le marabout ne cesse d'aider euh, quiconque qui en a le besoin. comme il l'a souligné tout à l'heure. Hein, pendant la saison des pluies, si quelqu'un vient pour lui demander, lui poser des problèmes qu'il n'a pas de semences ou bien de euh, matériaux, le marabout le fait euh, sans pour autant demander aucune condition. Donc je pense que euh, on ne peut pas laisser ternir la réputation l'image de notre vaillant marabout qui est chez Serigne Abdullah Hanbak. ndax kii di sëriñ Abdou Lahad Mbacké moom xamul leen lu dul jàmm yàlla ak dimbali néew ju doole yi. duma bii ñuy tegg na ci sëñ bi naqar nañ torop naqar nañ torop torop torop torop dama bëgg nag ñiy wax naan sëriñ bi day tagg yi xale yi di leen def sacrifice waxuñu dëgg loolu amul loolu amul sëñ bi sacrifice taxu koo ju xamul sax na ñuy sacrifice nañuy wax dëgg te yàlla tax ñun li ñu ñor xam na mooy ñor liggéeyal tool bi sunu njëriñ la ñun ñëpp ñun tund fi nekk ñëpp sunu njëriñ la ay mangaan jaar nañ fi ne lii ku neexul da nga cee bokkul am na wala amul kon buñ fi taxaw di naan sëñ bi day def ay sacrifice la amul bàyyi li ñuy def voilà ñun ñëpp nag jaamu yàlla moo ñu tax a jóg jërëjëf Cheikh Abdou Lahad jër jërëjëf Cheikh Abdou Lahad Mbacké ñu xamal ne sëñ sëñ Abdou Lahad Mbacké mii suñu sëñ Abdou Lahad la bu ñu ko kenn yàqal ñu ko jaxeel bu baax dongom du yalwaan ndongom du dóor doomu jambour ndongom fum mu mu ngi ci alcorane bu wacce tolam mu ngi ci alcorane demut ci kenn dikkut ci kenn lu way soxla nak ci mom bo fa demé bu sobe yalla dina la ko defal sonalut kenn kon na bu ko kenn sonal na ñuy ñaan rek si yalla ak yonentou bi ak jëmmi sëñ lat mbacke mi ñuy fi yor mu yir ñu ba Touba ke bu ko kenn sonal. ay cadeau chéré rek ci bi sëriñ bi bi ko seex Saliou sancalee fii legi xamul lu may liggéey ak jaamu yàlla rek ci la saxoon di jàng di jàngale boo gisee tund yi yëpp fii ba Dakar dañ fi indi seeni doom mu yor leen bu ñu la waxoon limu dong yi da nga naan lii nekk sëñ bi yoru leen moo leen di dundal moo leen di faj moo leen di dundal moo leen di faj te koo xam ne kii gis na nga xam ne maanaam am na loo xam ne lii xëy na itam loola tumuraan nga ci te mu yëg ko dana ci def loxam ci bëggul kenn yëg ci tank yu la doon taxawé yeer ya nga fa dal ya nga fa lepp nga fa kon nañ wax jërëjëf Serigne Abdou Lahad Mbacké yàlla na fi yàgg te yalla na fi yalla na fi barke serigne Touba bi ku nara dox digganteem ak mom mom mu dal sa kaw leneen nak amu ci soxla politikul demul ci kër kenn dugul ci kër kenn ay dongaam duguñu ci kër kenn ku jotee ki dongaam ya ko fekk bir be jote wut ak kenn jërëjëf Cheikh serigne Mbacké barab bi ñu taxaw nii mooy teen bi lii ci sama ginnaaw mooy set deux bi pompe bi mu ngi ci biir sëriñ bi moo ko defaloon waa dëkk bi fere na ci lu tolloog un million quelque fii ma jàkkaarloot jigéen ñi ñoo fi doon bay mbayum noor cinq mois lañ ko commencé raccordé ci trois millions kon kooku ku am yërmande la kuy dimbale jaam ñi la am na mbaar moo xam ne si biir daara ji filmer nañ ko suñuy doom ñoo fay jàng sëriñ bi moo jël ab jàngale katam chaque weer mooy fay si xaalisam suñuy doom lay jàngal am na ñu fi wàcc alxuraan ñu dëkk si dëkk bi lii may wax ñii sama ginnaaw mën nañ ko seere am na soxna soo xam ne si dëkk bi la dëkk fi la juddoo ay maamam ngi fi ay baayam fi wàcc na fi alxuraan jigéen la kër gi ma jàkkaarloot am na xale bu boo xam ne juróom-ñaari at lay am wala juróom-ñett moom tamit wàcc na fi alxuraan waaw ak ñi sama ginnaaw waaw ma dendat moom tamit wàcc na fi alxuraan ci dëkk bi la dëkk mokkal na alxuraan ci dëkk bi la dëkk kon sëriñ bi dañ koy sant di ko gërëm ñun lu baax liñ xam si moom loolu moo tax tey ñu indi jëmm ci taxaw turu yaar guy xeexuñu xulowuñu xastewuñ waaw sëriñ bi ni mu nekkee ñun daal wax dëgg yàlla macha allah rafet na. seen site d'information Sine TV nekkee fii ci diwaanu Fatick indi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci sport culture éducation santé politique, ci politique la sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu mucc ayib yi nga xamante top les plus lépp lu jëm ci actualité Sine TV nekk fii ci diwaanu Fatick toogal fi région bu Fatick ak Sénégal Sine TV Djoko Djal.